Euh, ligne bi xam naa moo xaw a saturé. waaw yaa ngi nga daaneel foofu après bu ñëwee ci sànni bi voilà dama ne. Mhm. Euh, doomu aadama day fauté day juum. tout à fait parce que sëñ Modou kenn mënatu koo miimal dara. Mhm. parce que li audio yi wax ak li ndaw si toog bi wax ñoom ñu ngi toog. Mhm. ki jëm ba jéggalu nag reconnaître na fautam. dadi mooy li may wax donte mu ne def nga fukk yu ñaaw même bu dee benn bis def nga benn bu rafet. parce ñu ay doomi aadama ñu ngi am topp sa ginnaaw mhm. di gis ci yow Serigne Touba di la topp mhm. liñ naan yaa a des personnes qui pas droit à l'erreur mooy boo jiitoo ay nit dañ mhm. ñu def la sëriñ sëriñ mooy ki nga xam ne dañuy topp xalaatam bu rafet xëy na la amul ci seen bopp lañu ñu gisul ci kenn la gis ci yow ba topp la benn côté waa waaw sutura bi damay ñëw ci côté yaakaar bi ak topp bi ak jébalu bi ñu ñëw topp la xëy na doomu aadama rek def nga njombe wala def nga loo xam ne xëy na xalaatoo ne woon sax yow di nga ko def parce que mooy topp sa nafsu topp sa bakkan parce que nit tam nit la amul fii koo xam ne rek nekk nga ku kawe ba kawe gën a kawe rasulullah sallallahu alayhi wa mhm. kon boo defee fóot yi nga nekkal dañ ko war a d'accord reconnaître ko man maa d'accord kuy uñu sutura wala kuy toroxal doomu aadama mhm. parce que même dara jéem na mu ngi jéem ba saa su ne parce que doomi aadama mënoo ne man damay assurer sama bopp àjjana wala je suis parfait li may def nii man tax na su ma ñaanee yàlla nangu nit danga def façon def bu nekk ngay ñaan sax yàlla du nangu. Mm-hmm. nga gis jaam bu xeebu jaam boo xam ne xëy na dafa suufeel boppam mu ñaan yàlla nangu sëriñ loolu la ñuy wax kii ñaan yàlla nangu ak ki suufeel boppam ba yàlla yëkkati ko mu ne kooku moo mën a nekk sëriñ doomu aadama boobu mu mënta gis. parce que damay gis tam nit ñi ñuy exprimer ak mécontentement. li mhm. nga xam ne ñoo xëy na moom moo nekkoon seen seen seen jëwriñ nekk seen. seen mhm. kilifa. Mhm. jiital ko dégg ko seen bopp pour mu won leen yàlla won leen Serigne Touba moom loolu mooy toogaayam foofu ci ngaam te xëy na am na déception nit tam il faut ñu doon ay doomu aadama foo xam ne il faut savoir pardonner jële ko. asalaamaaleykum. liñ bi dagg na. dégg nga shérif mm. doomi aadama mm. mooy ki nga xam ne day juum mooy ki nga xam ne day fote parce que moom nit la kese mënul wax a wax ba doon malaaka. Mm-hmm. te audio ku dégg audio yi di nga xam ne kii kii mooy wax waaye ne gis naa ne mu nekk loo xam ne xëy na lu ñuy topp depuis 2009 ñu ngi prononcé wu ay détails et des détails et des détails yoo xam ne képp ko mu mënta doon na nga jàng ci les lii leçon muy ministre nga muy sëriñ nga muy kilifa diine nga muy. dangaa am sant bu diis na nga pare asaka bis bis boo duggee ci uñuy sutura doomu aadama xëy na moom yàlla daf ko feeñal ay ñaawteefam pour le dindil ko bàkkaaram xëy na yàlla namm mu génn ci lii bu doonte ni def na ko sax benn yoon jëla ko hmm. Chérif alors waaye ñu ngi may wax ni temps bi mu ngi dem euh, alors kii defe naan ah, hmm. yaa ngi dégg am na hmm. ci loo xam ne tey bu ñu demee ba dox ci damay gis ñi ni mii naan man la du man kii la moom la wala du moom nañu bàyyi farfarloo bi ak côté bi ñuy féete. Mhm. ki def fote ba jéggalu suñu borom jéggalu doomi aadama yi nga xam ñoom lay jëflanteel ñuy wax wër ko xëy na tam am na noo xam ne warewul woon noonu sa morom jor toog ngeen waxante waxu gor ki bëgg leeral ba toog taaj leen yëpp ñi ngeen toog parce que nit tam bu amee tiitaange doomu aadama geste doomu aadama rek lay def am tiitaange xëy na miim wala bañ gàcce benn doomu aadama bëggul ku la gàcceel koo xam ne dala manqué wor ma wala ñu toroxal la kon am na ci loo xam ne ñu nañu sénégalais nañu mën a baal na nañu bàyyi di kaa kaa boo xamante ni doomi aadama rek kan moo dund ci àdduna bi shérif muy yow di man te mosoo def loo xam ne bëggoo ko xam mës mm-hmm. nga gis doomu aadama bu dund ci ci àdduna ngay xëy di yeewu di lekk xorom di lekk suukar nga ne ma musuma mooy ko ci làmmiñ donte fen la sax nga fen ko wala nga jëw nit wala nga njaaloo kan mooy dund ba dund jeex nga ne musumaa def loolu di nga juum sax nga ne jëw naa donte njaaloo donte moyoo yàlla sa sa awra am na ci doomu aadama loo xam ne da koy def yàlla da ko fay feeñal parce que warul nekk doomu aadama boobu boo ko tooñee tam yàlla da dala koy won ci saasi parce que dafa nekk nit koo xam ne tooñul te kenn waru koo tooñ moo tax am na ci loo xam ne boo ko wootee woo da ngay moytu moytu bi moom bu yàlla ànd ak yow day bañ nga foti te boo fóotee moom ci saas dalay won ne dangaa bokk ci man dinaa la weer mm-hmm. yàlla nee nañ jaam bi nattu bi jaam bi rek la koy teg mooy jaam bi mu bëgg dëgg moom la koy teg mm-hmm. jëla ko chef asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum maaleykum salaam Chérif na sant alhamdulilah man la Mara Sow Côte ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax a baax maa yéen a ngi ci jàmm ana sama maman adoré. waaw sama doom na nga def maanaam namm naa la ma chérie. nama naa namm yow. namm naa la trop. naka xale mbaa ñëpp a ngi si jàmm. maa ngi waaw waaw bëggoon a participer. yore la bi rek. comme d'habitude. Mm-hmm. ah ngi ñaan Sénégal yàlla def fa jàmm rek. Mm-hmm. parce tamit li xaw Sénégal dafa metti mm-hmm. waaye nag Macky Sall na xam ni taal bu yàlla taal moom nag sànni ci mat rek a gën a fay ko. ndax li xew lépp gis nañ ko li xew Kaolack ak li xew fépp ñun ñu ngi koy seetaan en direct léegi nag dañ naan taal bu yàlla taal sànni ci mat moo gën fay ko Sonko nañ ko nañ ko ni jàkk te bañ koo piis te xam ni moom la fi yàlla nar teg lu nar a ñor bu baxee xeeñ nañu waxantee dëgg na ko bàyyi noonu rek moom tamit ba mu ba mu waree falu noonu la fa demee woon gis nañ ñun image yëpp a ngi fi mhm. yëpp a ngi fi léegi daal Sénégal nañ fa ñaan jàmm rek mhm. jërëjëf ñu bàyyi Sonko Macky Sall bàyyi Sonko de toute façon ku war a gañe moom da ngay gañe rek. jërëjëf li xew lépp yàlla la. Mm-hmm. voilà. merci beaucoup. yal na jàmm yàgg Sénégal. amiin yéen tamit yal na ngeen am jàmm. amiin amiin Dakar Dakar Feeling ca kaw ca kanam. jërëjëf jërëjëf. jàmm ak xéewal sutura ak teraanga. merci beaucoup maa ñu ngi lay jaajëfal très fort bisous bisous à toi. allez merci ñu ngi lay jaajëfal depuis Abidjan di la jaajëfal. ok merci beaucoup merci Mara. yaay booy nga tëjee foofu ñu. waaw Chérif comme ni ma koy waxee. Euh, doomu mhm. euh, lépp loo xam ne def nga ko sa dund rek da di ko war a def parce que da nga doomi aadama nga munoo wees doomu aadama. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi dund doomu aadama muy mu làkk muy feeñ def nga njombe njaaloo nga sa gémmiñ njaaloo nga sa awra wala fen nga ci loo xamante ni waroo koo def da day am yu feeñ ak yu feeñul tey bu doon yàlla dafa jël audio yëpp jël vidéo yëpp génnee dañuy sénégalais dañoo mën a diaboliser ay yëf moom góor la comme beneen góor ki feeñ la ak ki feeñewul fii ñi fiy def ay ñombe mi ngi mel ne xus muy nitu gouvernement muy policier muy doomi aadama buy dund laa muy Sénégal bu dul Sénégal ñépp ay foti dañuy kay dafa feeñ dafa dem à un certain moment lii génn te nit bu jéggaloo dañ ko war a jéggal li ko bëgg gëm dinañ ko continuer gëm ñi ko bëggul a gëm parce que da ngay gis koo xam ne day doon kilifa kër sax nekk nekk ci naka sugul noonu te lu teree njabootam dañ koy continuer bëgg. Mhm. am na ci yoo xam ne ku ba ne nañ ko jéggal mais nañ ko jéggal parce que du yàlla du yarant bi du sëriñ Tuubaa kon am na ci loo xam ne ay doomi aadama nañu seetaat seen toogaay xool nu ñuy defee ku ci nekk nag boo toppee nit toppoo sa yaay toppoo sa baay comme la may wax man sama bopp yow nga ne da nga jël nit jébbal ko sa bopp da koo gëm. moom nga jox sa at sa bopp àdduna ak àllaaxira donc yàlla mu ngi wane différence différence ni man man maa leen man maa leen man maay seen borom maa leen moom man maa yooyu ñu topp ma man maa yooyu ñu gëm ma mais boo amee loo xam ne yaa ngi koy xencu ci ni muy Serigne Touba nga dem à un certain moment gisatoo ko ci moom bu la neexee nga retiré wu mais yàqante bi nañ ko bàyyi sénégalais mm-hmm. da nga koy seet ci kaaw tampi keroog maa ngi lay avertir nee naa leen képp ku moytuwul di dugg ci mbirum Ousmane Sonko ci naka su dul noonu nit toog ba xaaju guddi 3 heures du matin 4 heures du matin nga jàpp ba set ñaan yàlla rek yàlla day du delloo ñaan kuñ ton xoolal doomam bi tey nu mu ko weeree. doom mm-hmm. xale boo xam ne 16 ans la xaw ma vingt ans la am. Mm-hmm. nga jël sa doom sànni ci biti. sa doom toog xale boo xam ne kenn woowu ko kenn influencé ko muy nettal moo tax ma ne képp koo xam ne yaa ngi uñu sutura doomu aadama lu mel ni moo Cheikh Ibrahima nga taxaw doomam nga am kàddu yoo xam ne tegginwul nga teg ko ci kawam xoola tey moom doomam mu ngi uñu suturaan doomam mu ngi koy waxal loo xam ne xëy na viem la boo xam ne yaakaaroon na woon sax nit dina ko xam xale bi di dund dund boo xam ne xëy na dinañ ñëwaat ci loolu mm-hmm. di nekk dund dund boo xam ne dund yu wereyaan dund bu metti dund boo xam ne xëy na xale sax waru koo mën a souffrir maa ngi seetaan uh, sunu naataango wal fajri yi macha allah ñu ngi ci doon def débat ak xale bi am na loo xam ne nit waru ko souffrir te nit moo ko koy teg nit dafa am loo xam ne sa place xol bu ci def xeer def ci xol. Mhm. ngay sentir nit di am yërmande. parce que nit ñi ñun bu ñu yërëmantewul yàlla bu yàggee mooy waral ayiba yi coronavirus leneen ak leneen yàlla mere ñu indi ñu yoo xamante ni kenn du xam deegu bette yaa ngi dégg rayante lu nekk mën na am parce que xol yi ñoo setul li maam Abdou da baax maa li waxoon nañu tàppe xol yi leeral ko parce que nit nit la kooku noonu Modou Lo moom ngaabu moom nit la comme yeneen nit yi Mhm. dadi dafa am ci lu mu nekkoon ñu fekk ko ma cay dox ku ko ci mën a gunge na ku ci mën a gunge ku amatul ngëm-ngëm am nga droit bàyyi ko nga dem mhm. mais nañu bàyyi weerante yàqante képp ku fi weer doomu aadama nag wala nga uñu suturam moom ndaw si ñoo ko sekk mënul nañ ko régler ci d'une façon sa jëkkër wóorul dugal la ci kër mhm. dem ba un certain moment ko wax kook sa jëkkër neen toog ci sutura ngeen wax ñiñ ko def tam xëy na ñu def leen ko te waxuñu ko ñoom la concerné mais nañu bàyyi taajante bi téesante bi ci penc mi penc mi nag mooy internet bi wasalaam maa ngi sant internet Feeling Dakar yëpp di leen ñaan euh, ñu abonné massivement parce que dafa am fu ma bëgg a yóbbu Feeling Dakar jële ko zéro mm-hmm. yóbbu ko cent yéen ñi nga xam ne yéen a may safoo yéen a may seetaan macha allah bëgg Feeling Dakar dama bëgg yéen ñëpp ngeen abonné parce que dafa am bataay boo xam ne ñu ngi koy mën a te buñ ci eggee yéen ñëpp di ngeen ci kontaan. Mm-hmm. am na ay yeneen anam yoo xam ne ci fan façon liggéeyukaay yoo xam ne ñu ngi ciy jublu te boo leen ci taxawee incha allah lépp dina antu ngeen ñaanal ñu di ñaanal kilifa diine di ñaanal kilifa aada ngeen xam ne saa su ne fàttewuma leen ci ñaan samay doom samay frère samay sœur hmm. yéen ñëpp auditeur Feeling Dakar ak ñi dul auditeur Feeling Dakar ñu ngi leen di woo di leen ñaanal saa su ne di ñaan Sénégal jàmm ne fi di nuyu waa Golf Sud di nuyu samay mbokk Nouakchott Casamance partout dans le Sénégal partout tamit dans le monde te du ma am benn exception di nuyu ñëpp sant ñëpp Euh, di nuyu Fatou mata sama sœur faatu Badji. Mhm. Euh, maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. borom maquillage yu baax yi macha mhm. di nuyu sama doom yooyu nekk Maroc gëj nañ ñëw. di sant képp koy liggéey Feeling ndakaar di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm élection yi passé ci jàmm rey ji dakk coono jeex ñépp mën a ànd si jàmm voteendoo yëkkateendoo dóorandoo ku ne ñibbi sa kër képp koo xam ne yeyoo ñu fal la. te liggéey nga ñu fal la ku yeewut ñu fal la nañ la dégager fële seet ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéey Sénégal seen réew moo leen ñor buggu ñëw jëriñoo seen réew dañuy jëriñ seen réew ñu fal leen tab leen te ñu doon ay xale yoo xam ne euh, macha allah daal nañu seet jeunesse bi ñu tànn leen dugal leen assemblée pour Sénégal mën a jëm kanam. jërëjëf yaay booy ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom it euh, ci leeral yu am solo yi bu ngeen ko soxlaa émission bu jeexee da ngeen def le 77 376. 31 52 ngeen daal di jokkoo ak moom ci numéro téléphone boobule euh, may jaajëfal euh, bu baax comme ni ma koy faral di defee j'aime sañse mi nga xamante ni euh, été bi mooy yëngu ci chemise yu baax yi ah bu ngeen ci bëggee da ngeen def le 77 3 016 42 82 77 016 42 82 di nuyu Ahmed Cissé di ko souhaiter un très bon anniversaire moom aussi day suivre souvent sunu émi jotaay yi nga xamante dañ koy faral di amal fii ci Feeling Dakar Ahmed Cissé bon anniversaire di wax dig daje samedi 21h.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 Dakar, notre plateforme d'information.